góor ndàngaan a ngi ne la moog Libidor ñooy bëri. Franc ki muy bëreel xaw ma ko. Ndeysaan. góor ndàngaan Libidor. Ndeysaan Franc. Lion nga xamante ni ñëpp na nañ ko ci li traditionnel nee na ma la nee na ma Franc ki muy xaw ma ko. la Lion ku ko dégg xam ne mooy li traditionnel. Ndeysaan arbitre bi sifflé waat na. góor ndàngaan Libidor. Ndeysaan. wàllu bee Ada Boy Baol ak Serigne Ndiaye numéro 2 bu faas ña ngay lewaatoo ñoom ñaar Serigne Ndiaye moo ngem moo ngem lu vert li Ada Boy Baol moo génn Franc comme doon bële disqualifié nañ ko Franc am na ndam li Ada Boy Baol ak ak Serigne Ndiaye numéro 2. ndeysaan ñu ngi noonu Ada Boy Baol Ada Boy Baol ak Serigne Ndiaye numéro 2 Mor Ndangaan Ngor Ndangaan am na benn avertissement ñaar ci kaw Libidor Ngor Ndangaan Kaaw Gourdin daan na ndeysaan Ngor Ndangaan ak Libido arbitre bi àtte na ndeysaan Serigne ak Ada Boy Baol ñoom ñaar Ada Boy Baol technicien la moo éliminé Cheikh Tidiane ñaar léegi moom Ada Boy Baol journée jax bi passé ñëwul woon tey mooy première sortie moom Ada Boy Baol waaye Serigne Ndiaye la am Ada Boy Baol Serigne Ndiaye ñu ngi jàppante wala ña ngay leewaatoo ñoom ñaar dara xewagul Ada Boy Baol Serigne Ndiaye ndeysaan Ada Boy Baol ak Serigne Ndiaye Serigne Ndiaye takk ko ba ci kaw dóor ci suuf na gaaw nee na gaaw moom Serigne Ndiaye numéro 2 nee na dama doole nee na dama liggéey nee na dama am ngemb nee lamba ngoog lamba ci lamb ji am na luy moom Serigne Ndiaye numéro 2 paxam bii ma xam xam lii ba rek door paa bi ñëwoon ba muy bëreeg Libidor stade Diop Iba Mar paa bi maa ko xam. ndeysaan ba Fass ba ngay def di jëli Serigne Ndiaye fekk seen yu dogg yaasa bu neex mas nekk nga ci bay bëgg a dee. man mii Serigne Ndiaye bu daanee ba ci lekk nga ca neel añu